hello hello les amours j'espère que vous allez bien Je mais aussi alors comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec votre très chère et adorable Kenza 221 bien sûr hein, votre animatrice de luxe la jeune chroniqueuse et j'espère que les cool les fine tout est impeccable de côté man moom maa ngi je me porte à merveille bon mes gars Tenda nak dama ñu indi leen benn boy bo xamné bu am talent la texte lyriciste la en plus kat la noo mais kat la mom nak dafa génné benn clip bo xamné ne la mais thème boo xamante ne nii ku ñëmé dëgg bëgg dégg dëgg bëgg dégg rap classique bo démé sétane clip bobu ah di nga bëgg dé lolu mom ma leen ko wax alors ce jeune rappeur très talentueux son nom MC Bawal

en plus mu ci préparation mixtape bon après loolu yëpp nak hier dafa génnee ben clip bo xamné ne c'est intitulé dëgg-dëgg té ci clip bobu lañuy wax joxé ci suñu xalaat suñu point de vue bàyyi leen yéen tamit après ngeen mëna wax seen xalaat ci commentaire yi légui ce qu'on va faire moy nañ dem xoli vidéo bobu ñëwaat légui léegi ay ci let's go fii ak chef de bande bi déwul liberté du am li fii ak sa aljana leewul gént gi du leer fii ak bët setagul nit du xam ci boppam. ok sama gars gis ngeen euh, vidéo bi est intitulé dëgg-dëgg boo liiree titre bi rek dinga comprendre sound bi parce que réalité la au fait lu ñuy dund fii Galsen moom la def sound wax ko mais avant tout damay féliciter réalisateur bi woo pop pop noo may clip bu am qualité macha allah lu dóor yoon la na xam ko et nice la def ci clip bi.

pour am lu ñu yóbbul seen njaboot seen kër yi mais ordonnance trente mille francs moo leen di faj bu ñu feebaree yombul c'est pas du tout facile Sénégal dafa metti ñun ñëpp xam nañ lool. sound bi moom vraiment je sais que MC Bawol yàgg na toog di ko bind di rëdd di xoos di ci xalaat parce que boobu dafa résumer problème bu Sénégal yëpp ci trois minutes pas du tout facile. en plus man li ma gën a neex ci MC Bawal mooy dafa ànd gëm-gëm moom talaawam ak joobam la yaakaar je sais misé wul ci ay clash top tendance pour de non la gem dafa am gem gem mom mom artiste la bo ne ngir peuple bi ngir dénoncer injustice bi fi nek nekkal amul di pour s'en et les gars mais ci artiste la warul neex ba nga warul neex ba nga public donc j'aime sa façon d'écrire il est trop classique mérité na public bi xam ko gaay je vous jure que ne ku dem seetaani vidéo bi do ko réccu di nga xam ni booy bi touché na la té mérité na ngeen xam ko mérité na ngeen partager ay tragam ngeen di partager ay liens parce que dafa def lu rare nek jeune nekkal ci public bi il est hyper fort ce jeune donc dawlen leen gaaw ngeen vous abonné sur ses comptes mën ngeen wax sen xalaat ci mom ak tamit no leen sound bi à vos claviers alors c'était ça la vidéo du jour avec votre Kenza 221 les gars n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche mais aussi de partager et de liker Comme ma vous mën nga ma envoyer message ma page Instagram Kenza l'officiel sur euh, TikTok Kenza national sur Snapchat Kenza Diallo et sur ma page Facebook Kenza 221. peace and love jàmm ci ñëpp yàlla ñëpp am jàmm à la prochaine gros bisous à vous portez